soirée bu la neex mais aussi am nga droit de fecc yi mais tey xam nga réew mi dafa yëngu ndax day jaay bànneex doon ànd si ñu jékki-jékki gis ko ci benn collectif waaye seet na foofu la bokk mais tamit ñu ngi la nga dem ci Sidi dafa nga bokk. <laughs> waaw man waxuma Sidi ca laa bokk ndax jëluma micro waxuma dara defuma dara damaa ñëw fecc dëgg sama bopp loolu laay wax damaa ñëw fecc dëgg sama bopp man damay liggéey xale laa. amaguma dara pauvre laa comme du ko li mu koy waxee sama papa yaa mhm. dara mais tey jii ni Clara bu ma woowee dama faa ñëwoon ñu leen liggéey ci Sidi bi soo ma fay la sa cachet mhm. damay ñëw parce bi bu wax muy liggéey la ma ñëw liggéey bi ko sama bopp sama dina nekk ku baax Sidi xaalis bari la ma may. moom bari la ma may ci bi. kon nag nit ñi bu ñu gisee di wax ñii di di bind dañoo xamul rapport moo organisé affaire bi ma ñëw liggéeyal ko te suba tamit Sidi bu ma woowee tamit dama ñëw liggéey parce tamit. kon bu la Sidi wooyee nga def place bi pare naa ci ñëpp ñëpp parce que tamit barke di moo njaay tamit su ma juumoo tamit gisoo ngeen ma seen wàllu sekk ma yëg boof. te mu xaas bari ma toj ko. du dëgg barki di mu ñay dem naa ci buro naa mu tere ma xaas bari moo toj ko waaw mi ngi noonu kon damay liggéey man amul ci amu laa nii amul ci kee laa nekk ñëpp xàmmee nañ ma ci Momo te koo xamante ne ñàkk problème ñàkk ki ñaan ñëpp nañ ma ko te ma ci dara mu nekk sama papa daf ma bëgg bëgg ñëw kon nag tey jii bu ma ñëwee di fekk feneen wala def leneen c'est normal waaw kay mais ñëpp xamee ne moom moo jaay. te ci moom ba léegi ci nga nekk wala wala. waaw ba léegi ci laa parce que démb rek maa ngi jour. Hmm. vopp. mais nan nga jàngatee nga xam ne moo di day jaay ak dafa war daal di ci wàll. xam nga diggante artiste ak fecckat dafa sew. moo ci mën a parce que xaw ma la lañ def ci biir. parce que suba yaa may dégg. Mhm. moo tax seen diggante ñoom ñaar du parce que xaw ma la parce que tamit sii di ko diggal na ko ba jëgal na ko ba tamit ko diggal na ko ba jëgal na ak lu mu munti xew rek sa parce que kilifa la loo loo ne dañ koy waxtaane ànd ak parce que dañoo nekk ay ndaw nekk ci bunt di wut am na lii di wax na ko xam. mais nga xam ne yéen fi ñu fecckat yéen a tey ba ndax coolu coolu yéen la. mais c'est normal nag. c'est normal ci nag. ah mais c'est fi ku wet am ki sa yaay. non dama la laaj ndax yow d'accord est-ce um, que tu es d'accord par man man damaa amul biir comme Pape Cheikh Diallo mu ko waxee ni ku a fecc macha allah mais ku nekk nag dama laa jox sa wàccuwaay bi nga mais ku nekk dama la jox sa wàccuwaay taxaw ne kii maa fecc kii maa ko dàq fecc mais man sama bopp laa man mën nga def man man bu baax la koy def. te jàpp nga ne yaa fi yaa fi nekk. jamono ji. mooy lim ci fekk kat mooy lu baax la def. loolu moom kenn ku ci mais loolu la ci diggante fecckat yi ak artistes yi parce que tout souvent dañuy gis ne maanaam fecckat yi bu ñu toogee seen koy dañuy dañuy dañuy ñàkk benn affaire la maanaam duñ gis seen bopp ci dara loolu mooy mooy seen musique man mënuma wax ak ñëpp man mi nekk ci groupe maa mën a wax ak sama bopp ku nekk nag boo ko déggee micro mun na la wax lan lay dundal ci seeyam man ki ma nekkal moom moo ma dee dafa ma bëgg bu rusu boo xoolee sax parce que vaar am na fi boo xoolee maam ni ngi liggéey bu tuddee bu ma xoolee rek day neex man bu ma nekk na day gën a mën gën a parce que dafa ma bëgg bu rusu ñu ne dañ kaa trahir même parce que moom moo nekk ni koo xamante ne man dama naan moom xam na ne man rek laay toog mais tamit waaw moom xam na ne carrément moom rek laay toog. mais tamit mais tamit yow yow yow Sidi amul amul te jamono ji yow tamit bi def loo xam ne nii kenn wérante wu ne daanaan nga tey Sidi jëloon téléphone woo la est ce que tamit doo dem fekk ji ko. waaw bu dee sama ma woowee dama koy fecc ba mu neex moom bu fekkee ma woowee parce que man fecc moom moo tax man ma joué guddi ma parce que dañ may sant si affaire woo ma ma ñëw def kon Sidy tey bu amee concert woo ma ci dama koy ñëw jàppale ba mu neex parce que amatul fecc kat te tamit dañ naan la vie continue mais aar bi tamit day continuer di dem munu toog estambaay moom tamit day continuer li muy def mënut a ñàkk léegi bu ñëw jàpp si ba mu ba parce que tamit xam nañ musique waaw dañ koy liggéey rek. mais mais mais mais ba léegi su ma la déggee. Mhm. yow da nga da nga bëgg a nekk koo xam ne nii polyvalent ngay doon quoi. mais man loolu dama ko yàgg a wax. mais nag mais nag fecc kat nag day am benn artiste. waaw ñëpp xamee nañ ma Momo man li ma wax dafa leer de ñëpp xamee nañ ma Momo Dieng mhm. bu joué man bu ma woowee dama nekk xale nekk ci buntu mhm. du ma dem liggéey ñu fay ma. ñuy wax si danseuse yi est-ce que c'est vrai am na ñu koy wax. waaw xam naa artiste yi euh, fecckat yi bees yi doogu ñëw kon day bees. waaw xam naa fecckat yi doogu ñëw a fi man ma lu may xëccoo ci fecc parce que dama ma boppam def mën naa ko am naa ci fayda. artiste bu mu mën tamit dama naan tàngoor nga fay ma te yow sa man bu ma la ko sa tàngoor fay ne damay yëg rek yow sama rek damay ñu ko kontaan xaalis bari nga may jox ndax damay bég. waaw kay parce que ku nekk rek ak li nga li nga man bu mu dugg si rek kontaan mu ngi loolu. démb démb ñu gis yow ak nu mu tëjee. Mbaye Diouf Mbaye Diouf ngeen ñëwul foofu. kooku sama rek la xeexul benn yoon franchement parlé. Ah. seytaane dugg mu déconné. yaa ngi dégg neer yi tàng sama yaram tàng rek ma déconné mais comme sama rek la est-ce que comprendre mm-hmm. lu ñàkk fay la rek parce que tamit am na loo xam te bu ko xëccoo mm-hmm. man ay ree sax la ma def yaa ngi mais sama rek la jotewuñu daara. xam naa suus bee ko tolloo fenn rek degré suus bee yéegul rek moo moo moo pena moo wax lu ko saf rek mais nag franchement parler jotewuñu dara dafa def dara rek mu signalé ko ñu ah, signalé rek xeex moom bu demee franchement parler sama bërëb liggéeykaay sama bërëb liggéeykaay man moom moo dama ñi fa nekk di ma seetaan sama fan si ñu bari ñoo xam te dañ ma jox cër dama leen a jox cër te bëgg kon nag nii laa toll ba jamono ji ma ne damay xeex ak kii kooku ci artiste yi wala kii ci fecckat yi mais nag bañ ak làmmiñ moo dëkk xam nga man nag mënu ma fen ma mënoo maa laaj ba pare fekk loolu sama papa bu woyee suuf du ma fecc dama nekk ci kaw seen waa tamit uweel la maal tamit nag mi ngi noonu. Ah, loolu dong la demee gis nga suuf si suuf euh, bi yi la wala ci rek. xam nga fer arme bu ñu ba pare cafka la. moo solo ba pare teg ci feri bi nit ngay doon comprendre nga voilà te moom loolu amata geel la te mënoo ñëw rek taxaw ne ñett ñëpp xamee nañu fer rek dañuy takk fer rek am na moom affaire toog jamono ji comme que nday nday nee na moom stambaay la pour nga daal ñëpp teg la bëri na fi mu doon ñu laay des <laughs> rek parce que tamit boo demee ba nit ñi di wax ci yow rek sant yàlla parce que am na ñu bari ñoo ci kenn ko ci ñoom moom bu ne day sa baay rek euh, nan lañ koy waxee ci tubaab sax ñu reculer reculer pour mieux sauter waaw reculer pour mieux sauter loolu lañ ko waxee xam naa lu ma tax ma ne day def loolu en attendant l'événement waaw mais yow mais yow mais yow yow moom pare nga pour yokk sa niveau bien sûr man aw ma lu ma ciy tiit aw ma lu ma ci ragal xam nga liggéey pourquoi duma duma man aw ma lu may pose si ko accessoire moom laa xam damay liggéey time is money. time is money. wala na ne lan nga am ci lu lu lu gën a neex bi te boo ko doon fecc. waaw man man man dama bëgg musique man dama bëgg musique ba man ba ma meree sax su ma doxee dem su ma bërëb liggéeykaay sax damay kiif may fecc nekk sama jàmm man ku ma xool xam ne man ku ma xool ci seen sax damay rey rek man mënuma ngeen damay rey rek je suis comprendre nga dama bëgg musique kon tey jii nii musique defal na ma lu ne. barke Serigne Touba Mbacké ah. musique defal na loolu damay sant yàlla ak avec le temps rek dinaa ko am. billaay walaay taalaay parce que ñii di yëkkati oto di ko may. waaye mhm. kii yonent bi fekk kenn dana gis façon santi ko ko rek may ko. Mm. loo gis rek mhm. temps la laaj. sor ko ma dara. Mhm. parce que comme te maa ngi satisfaire sama yaay boobu bi nga xamante moom laa gisee. di topp ci waawam lu mu soxla maa ngi ciy taxaw sant bu baax a baax a baax ah nekk moom ci biir kër gi manqué wu dara macha allah te musique ma ko may. Mm. ak fecc bi may fecc baax leneen lu ñëw la. bonus la ci fecc la moo waral yéen fecc kat yéen leen ñu gis na ni yow ak Serigne Ndiaye nee nga yow Ndiaye du sa xarit moom mu taxaw jël micro wax ni. ba mu liggéey sii bi yéen a ñëw seen tàgg wala ko mais da nga ñëw pour defante moom war a war a war a def mi ngi déggal loolu yow naan la def dama taxaw ci de ñuy wax moom ragalu ko. waaw de sax seetaanu ma ko woon dañ ma yónni dañ ma yónni ñoom parce que man li may toog seetaan ci yenn sax bariwul. Hmm. mais loolu ba mu cité suñu tur ñu ma ñun Sidi suñu papa la Sidi bu soirée ñoom jotee te ñun xamuñu jote nañ wala jotewul. seen seen la da nga respecté sa kilifa tey bu ñu ñëwee même si mere na ci kenn wala jote nañ ci ñun mais may yore ñu def parce que tooguñu fa ñi da ngay yaatu ba mel ni xaal man sama seen am na ñoo xam ne dañuy ñëw sama seen te duñu wax ak man barki Serigne Saliou Mbacké dama dama fekk bu ma feccee ba pare dama lay bàyyi nga def fii amul benn artiste bu fecckat buy taxaw des fois dafa siis ci seen. Hmm. wala dafa bon ci seen parce man lu mu dund. te bu ma gisee ni bëgg a yéeg sama seen pour am lu mu war a yóbbu këram da ngay yéeg même si sa doo wax ak man nga ñëw sama soirée boo bëggee yéeg dama naan vidéo bi bàyyi ko mu yéeg su ma defee ba pare damay wàcc may la nga def pour nga mën a libre moom nag xelam foofu la ko tolloon te dañ ko comprendre ndax duñ ko ko jàppee est-ce que comprendre nous la rek mm. showbiz rek mm. mais ñun dañ koy comprendre xam naa fu mu tolloon la ak lu mu jote woon nag Sidi Diop mais man dama part personnel bu dee jàppal naa ko ci lu mel ne tarafata ay nii baaki sëñ Tuubaa yàlla bu ma ci am dara ci aar wax dëgg yàlla mais man dama jàpp rek xelam moo tolloon foofu noonu problème boobu am suñu biir te man boo leen gisee sax ci vidéo bi maa mujjee wax beneen fekkat bi nañ wàcc du dëgg. Mhm. maa ko mujjee wax nañ wàcc ci nañ wàcc. mais moom li nga xam mooy dafa bàyyi da ngeen barke Serigne Saliou Mbacké loolu moo am. barke Serigne Saliou Mbacké xaw ma woon ni sax moom si jote nañu ba may xoolaat vidéo yi laa xam ne ñoom ñaar kon yaa problème ci jour mais xaw ma ni jote nañ mais ak lu mu munti doon ak lu mu munti si buñ jotee man ci sama gis-gis ci suñu liggéey nit ñi sa waroon ci remarqué ma patron nit ñi mun waruñ ci woon a remarqué sax bu ko ne defee nii rek mu defee nii parce que tam bu dul dara mooy suñu kilifa tam moo ñu fay. mais mais mais Fatou Sarr sénégalais yi dañoo xool ne maanaam problème dafa am yéen ngeen bëgg a jaar ci suuf dem pour ñu jël ñu ci bëri noonu lañu jaay dàngatee li nga xam ne. xam nga danañ dañ ne tombé waral ay gaaf. ah tombé pour tombé waral ay gaaf parce que rapport bu muy tëgg nii yàgg na. Mhm. tombé problème yi am. Mhm. tombé bàyyi bi am. Mhm. xam li ci bool li ci bokk yëpp dafa bareendoo ci même semaine bi mais tamit loolu su amee. déggoo ma wax ci déggoo ma def ci quoi que ce soit déggoo ma dem ci fenn ci def leneen ak leneen mais liggéey bu taxawee tombé problème bi am du dem liggéey. te Clara ma woo mais ma ñëwee boo la xoolee Sidi dafa kontaan. waaw Sidi a problème. non non Sidi rafetlu wul fecc ah, am na problème te yow gis na la nga daw ñëw. kon day jàpp ne yëg nga problème bi. non si bu mais tamit fii lañ ne di on est on est où fii lañ ne Sénégal. problème bu am dañ koy yëg. parce que ñun ñu ngi ci showbiz bi. fii la ñuy toppee kaayitu. voilà kon loolu bu amee ñi toog ñu woon pour pour ma ñëw liggéey si dama yéeg seen bi def ba mu baax fecc ba mu neex parce que je travaille. waaye. liggéey la daal nga que pare naa lépp pare naa lépp. ñu ko liggéey ci yoon ginnaaw moom moo bi. ma woon ginnaaw moom moo ñëwee mu ko ci kër na xaw ma woon doomu séeréer laa damay liggéey. mais fi Fatou Sarr nag euh, moom fi fi mu doon euh, li pare di xoolee. foog nga jàpp fenn quoi parce que. boo bëggee dem ci nga bàyyi. Momo nañ ma Momo Dieng ba ci Sidi moom ndax ñëw na dama jàppal dina baax. Ah, fekk na ma fa. moom ñëpp xamee nañ ma Momo Dieng kon duma teg Momo Dieng di dem fecc li ci Sidy dama ne sama commencement wax si Momo Dieng bu joué wul deful dara dama ma woowee damay dem liggéey hmm. bu dul Sidy sax benn artiste bu ma woo damay dem liggéey fayee su ma la déggee daal bu la Sidy contrat. damay signé contrat man damay liggéey damay signé comme ñëpp. comme sama papa comme ñëpp. mais boo signé contrat mais loo gis waxtaan la waxtaan bu mu amul tamit réeroo day am du dëgg. te lépp looy dugg day fekk nga am ci conscience tranquille ma loolu laa jàpp te lépp looy dugg balaa ngay signé quoi que ce mhm. tamit di wax li nga bëgg. ñoom buñ ko accepté xëy na buñ ko accepté nga xam mais fii di ku mu woo da ngay jug dem liggéey parce que boobu lim ci waykat yi ñoom ci la bokk. Ah, bu ñu déggee sax dafa mel ni yow da ngaa pare pour ñëw jël place mel ni da ngaa pare ñëw jël place bi Bana ak parce que yow ku yow yàpp wax nga fi léegi ne Bana yaa moom yow du sa xarit leen nga ne yow du bul dara bul lii sax am na lu xaw si diggante ñaar avant lii di xew

mais man dama part personnel bañ na ko ba mu limee wax lu négatif sama côté wax keneen ki lu baax xam nga ne yaa problème kon man du ma nekk benn nit koo xamante ne nii dama hypocrite naan lay ñaay sama nit la wala sama laala est yaa ngi comprendre bien vrai que yaa problème mais li may def yëpp cadre mhm. yaa ngi liggéeyee loolu ma remplacé ngay ñaay ci Sidy Diop mënu ma ko de xam nga tax xam tax xam nga lu tax dama ne la fecckat seen diggante dafa sew suba mën nañoo juboo moo tax du ma ñëw di buuxle ne damay fecc man kayit laa xam pour en foo sew ma dara mais moom ñëpp ñëw seen bi di ko fi ñëw ko ñëw seen bi ma seen bi. ñëw bi ngeen ñëw bi ngeen naa ñëw fii di bëf si ba ñëw bi ngeen ñëw nii sax xam naa neex ko parce que daf parce que yow daf laa cité. yéen a tax mu fuloog Sidi yéen Fatou Sarr yéen a tax mu fuloog Sidi. non c'est pas vrai. moom moo ko wax. mais non c'est pas vrai ñoom seen xuloo seen xuloo la. mais yow ça tombe juste ñu ñu ñëw. waaw ah. pardon ça tombe juste ñu ñu ñëw fecc loolu ñoom ñaar te après xuloo boobu ñoom jubóo nañ fi dem ñu fi voyage nekkuñu seen jàmm. mais leneen bu amee ci biir ba ñu jël affaire yi teg na mhm. duñ ci lenn ñun liggéey rek lañ sekk te yéen gis ngeen ma gi joon naa seen siidi te li muy way noonu la neexee des fois man damay ñëw dugg toog ma way ba mu neex ma déglu enjoy ndax nit laa baal si comme ni ma ko defee ci sama papa Waly Seck baal si bu ma sentiree yéeg yéeg parce que ñoom ñoo nekk kilifa yi bu ñu bëgg woon yéeg du ñu yéeg mais pas ñun pas façade benn façade bi moo jaxase Sidi ak Ndeye Ndiaye man xaw ma seen jotee te wax dëgg yàlla dugguma ci. sama yoon est-ce que mën nañoo xaar tamit moom day liggéey yor na ko am na ko mën na ko tey bu xëy xëyee jox ma oto dama koy jël waal bu xëy xëyee jox ma oto dama koy jël. mais loolu sénégalais dañ naan daal waal lay mën parce que waal jox bi jox leen ay bànneex dañu laa gaañu gisuma loolu xam naa da koo bëgg teral rek mu teral ko. Ah, parce que tamit ñun nag fecckat yi ñun fecckat yi nag il est sax ngeen teral ñu loolu dëgg la. am na ñu sës te joxu leen. non loolu moom moo xool ba seppali ko te jox ne ñaay kon ñu koy yéene rek te dañ koy ñaanal mu ràpp jàmm franchement parler gisuma ci y a rien de mal su diggante ngay naan moo ci nekk. dara showbiz la rek. na dara. parce que nee Ndiaye bi ñuy tourné clip bu jaaga baas bi naa ko doon tourné clip bi moom moo ni bi ñuy wax woo moom mooy man nañu woo Fassar woo di woo di wala boobu suñu yéen ñaar neexoon na mais da ngaa taxaw léegi yéen ñaar nekkul sa xarit te fi ne da ngaa def gan ànd ak beneen Fassar ak nañu dem mu ne yéen da ngeen koy compte ne yéen moom ngeen defanteel parce que moom nag quoi ko fi dir moo fi gën a wëlbat bii takk xeer yi moom parce mu leen wax yéen ba roy leen ko te ku ne ku lay roy ku ne bu soon day jël sa place mu jotee rek nga ñëw taxaw ci sa gëstu bopp wane ni kon ni nga feccee feccee fecc ku ñëw bëgg ngaa fecc fekk dama ñëw pour taxaw jël sa place noonu nga feccee ba pare mu tudd la ni yow yaa tax mu xulóog mu njëkk xulóog si di ci àdduna am yow la ragaloo seen question yi daa bëri damay commencé ci yow nii waaw ma tontu loolu ndaw euh, nga ne sa première question bi ñu ngi tourné clip bi waaw ba yittu nit boobu am boobu it naa amoon ngeen jàmm yéen ngi nekkoon di di fekk muy neex ngeen nekk xarit moom la neex ngeen ñëw ci kër moom moo ci doon seet ñu ngi doon fekk boobu boo ma ànd ak Fatou sax ak Ndeye Yéen mën ngeen ñaar mën ngeen ñett dana ko a affaire concurrent ci seen biir ba tax yéen ngi def defante ak moom moom mu taxaw dëggal ni loolu loolu dafa am mu fi xool loolu lu mu jibooyee waral loolu tax naa ñoo taxaw seen dëgg sa bopp feccoo fecc fekk fekk ne maa fi nekk ñëw naa. léegi affaire jàng bi de ak sama ak ay groupe lañ def di ko xeex man defuma ko man sama bopp laa liggéey ma kenn waxuma dem xeex defuma benn man sama liggéey bii laa tànn naa yaa ngi dégg defuma groupe xeex nañ njaay defuma dara ba nekk làmmiñ nag ñoo ànd. femme mais defoo benn góor la xeex ngay njaay ci quoi que ce soit mu ngi bay waaram maa ngi bay sama waar te lépp rek fii la gaal bi génn benn lépp fii kii kaw deuxième bi nga laa mës a feccee ba mu moo jeex sa booy gis damay fecc dëgg sama bopp te fii ku feccul dëggaloo sa bopp kon gëmoo li ngay def dama damaa gëm li may def moo tax fu ma fecc damay dëgg sama bopp bu ko kooku noonu nag bu toogee seetaan dina ne kii fu la fenn bu ma amaatee dara fecc bii nii nag liggéey naa gën a tax sama ci jàppale sama yaay kon man jaaxaanu ma benn yoon si ay comprendre mm. fu ma mënti fecc fecc dama def sama bopp. mais ginnaaw soirée woon la. parce que dama gëm sama bopp Sidi Diop woo na dama ne leen raf moo organisé soirée bi Clara woo ma te ba mooy ñëwee barke allah ci fàllu Mbàkke gédde ma ñu ko accueillir maa yëg maa ñu ko ci seen bi dafa kontaan ndax ni ma ñëwee la dama jàmm laa paix laa woote wu jubóor la Touba la laa soxla. non dama ne ginnaaw soirée bi. après soirée bi Sidi Sidi woo na la pour pour nga ñëw samedi prochain. parce que samedi si deux heures five woo na la. non non ah woo ko kon yow doo dem. parce que man dama direct. mais doo dem kon dafa ma waay woo. dama fa dem mais ñoom. dañ maa bëgg te dañ may sentir. te buñ ma woowee ni ma ñëw jouer si five samedi. dama ñëw jouer five def déguisement bu baax def comme ni ma daan def rek xale yi bëgg. c'est le mot de la fin. xaar xaar est-ce que damay ñëw tuuti rek si diggante ak Ndeye Diouf comme yéen xam ne neexoo leen mais seen sax da gis kii day génn fii kii day génn est-ce que loolu nag du yàq esprit de hmm. la jiitu hmm. a wax ku la jiitu ci nekk loolu a wax. parce que man duma màggee la ba sama tur mais léegi sama rakk la barki Serigne Saliou Mbacké jottoo naa ñu dara te wala ko laa jotee moom ndax barki de naa ñu dara ñu ma may ko ci kaw seen bi kon moom bu toogee bu mu neex man bu ma fecce jànne bu fecce jànne ni te ko jiitu ci aar loolu moom la mm. loolu moom la parce que man ba may fekk samay mag ci seen fecc su ma leen feccee ñu jàpp gaam dama leen topp seeni gaam. mooy yow yaa dàq suus loolu la sii ah nee na ñun maa ko dàq suuf. Mhm. Mhm. même ba moom sax. ñoo génne fecc fecc bi maa leen ko dàq pourtant dàq ma leen ko sax pourtant seen suuf si dama leen ci doon def promotion affaire bi gën a yokk rek. mais waaw man nee naa la liggéey duñu benn liggéey duñu benn te fere duñu benn. waaye su ma nañ xaar nga génne benn fecc. fecc bees ndax yow yow da nga fekk créé jàpp nga fekk. doo créé man man man man maa ngi fecc nag. mais fecc kat day créé. waaw day créé. man créé naa fi mu ne. comme ban. man damay créé léegi-léegi fecc dara. nit jël ko. comme ban. waaye te instant bi de maa ngi ñu ngi fecc lii di doxantu. moom ah. dina génne soora ñu doxantu kon daal yaa ko ñu doxantu yéen gis nañu ko ah. waaw waaw. te loolu def na <laughs> def na en tout xale yi bëgg nañ ko. mais nag xam nga fecc da nga ñëw rek fecc affaire bi day ñëw rek sa mu naas du dëgg waaw te man fecc bii di xale di fecc di di xëccoo ñun war nañu xëccoo leneen lu doon ay suuf sa diggante ak njàpp lan gis nañ moom invité bana yaa ju ñëwatul ñoom ñaar yéen fecc mu ñëw jël àllam ni day yaa ndax yéen njàpp njàpp defantewul kenn bàyyi faal la suma jumoo la jumoo ñëpp la Baye Fall la ku ñëw ci seet bi day kontaan moom kuy liggéey si rek day kontaan Baye Fall la allah accu moom lay dund moom moom rek ñëw kii te tamit moom tamit am na droit def loolu parce que ñoo ko fekk ci seenam am na droit teral la pour nekk à l'aise ci kaw seen bi wax dëgg yàlla looloo def loolu sax moom loin de ça moom dépassé na sa level boobu moom billaahi moom loo wax rek mu ne la jàmm laa peere jàmm laa peere. jàmm laa peere mais Fatou Fatou am na jëkkër wala am na jëkkër célibataire laa. waaw góor ñi ragal rek xam naa. ah kon gars yi xam naa léegi tey jii loolu. nga tàggatoo ak mbokk yi nga xam ne waaw man li may tàggatoo mooy Sénégal yëpp bu dee li ma wax ci émission bi. dafa demee boor maa ngi li ci bon maa ngi jéggalu bu baax ndax nit matul hmm. lu ma wax lu ci baax rek waa jël leen lu ma wax li ci bon rek maa ngi jéggalu bu baax parce que nit matul damay wax rek xale laa di leen baalu àq nag ci lu bari hmm. ñii naw nañ ñii bañ nañ hmm. mais di leen baalu àq dina wax ne xale laa dama nekk ci buntu bi mu jàppale ma rek ndax tamit man ñëpp laa seqal jàmm di remercier ñëpp sama fan sama ñoom ñëpp di remercier sama papa bu moo jeex ndax lu bari moo la moom dugg ci dugg ci dara man rek la bëgg moom loo wax rek day ree fan sax kon dama koy remercier ak staff yëpp waajuma fa sa bay bay maa ngi moom ba Isilette maa ngi moom ba Paris ba Zénith ba Bercy waaw moom moo ma joxoon ba ba fépp. yaa ngi dégg. moom bu ma bind moom bu dul contrat sax. da ma bëgg ma bëgg ko xam nga loolu avant fête la daf ma bëgg ma bëgg ko sama papa la man aw ma ci moom sago moo tax chaque jour may keneen ay déguisement yu bees. di ko teg ci sañse yi. ndax fii ku kuy créer déguisement rek ci man mi ci man mi ngay ñëw. lëmbal yaa ko wax dëgg yàlla ci man mi ngay ñëw maa créer déguisement yi. di remercier feccikat yëpp di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp di remercier sama xarit aji eh, feccikatu Pape Diouf bi moom daf ma bëgg amu ci man sax bu ma ko woowee dara rek day bàyyi ñëpp Xadi Njaay buy joué Ibro Naaja dana ma fasante lan nga may ba amu ci man sax moom moo tax laa plupart moom mooy ñëw Ibro Naaja xam nga bu damay bëgg ñoom kajjaa sama mag jooju noonu ñoom nabu lay fecckat yëpp maa ngi leen di jox seen i wàcc waañ di leen jéggalu bu baax bi dama wax loo xamante ne ni dafa demee boor du mat du man yaa ngi comprendre ok di remercier waa Grand Yoff mag kenn waa Ngor waa Wakaam bu ma limee jum uñu mbóot dafa maa bëgg ba yéene ma moom a magal fan mbóot dañ maa bëgg ba yéene ma bëgguñu benn yoon ma toog liggéey rek billaay walaay taalaay bi dama sëy sama yaay nag aw fayam ndax moom laa dese yàlla ñàkk bàyyi sama yaay laa dese li may def nii pour moom ne barke Allah defal barke aw ma fayam moom bu déggee coow li day rey sama yaay bu may ñaanal barke Sëriñ Saali Mbàkke dama ñaanal ma doon ñun ñëpp may bool ñaanal su ma ko ne yaay kii tooñ na ma sa ma garaaw yaa te dugg ci lii bi ñaanal ñun ñëpp lay tuuf ñaanal moom maanaam daa njaboot te ñëpp kon dara du ma sa ñaaw parce que ñun ay seen ñëpp laay remercier dina remercier yéen ñii nag parce sonal naa leen ma ne fekkee naa leen wax ma saf ma saf waaye ñu tamit a ma gën a sonal ndax yéen lu ne ngeen di jël yaa ngi ne dama a sonal ñoom samay waay la moo ku ma ci gis nga yor caméra dama ñëw ba ci yow sa numéro mu paree ñu kafal ko kaf foor yi parce que ñun ñoo baax ñoo oyof nekk ay góor mën nañu wax lu nekk te duñ ci mel. ñoo yor bës bi ñoo yor bës bi. waaw Fatou Seye gën a bagage boobu. feri feri feri feri feri sax waay ne wala du bee. feri yaa ngi noonu. ah, ah, ah ñu waxtaanee ko rek. mënut a ñàkk. waaw mi ngi nii rek. mais moo tax kay. mais bi doon nga ko décortiquer bi maa koy nas man fer bi ma takk maa koy nas de gis maa bu ma sotti. tamit maa koy defaral sama damay jënd yére yi jëlaat ko defaraat ko changé waat modifié ko mën cee liggéey ndax dama am kilifa seen man. am tamit loo xamante ne nii foofu à part bi loolu moom la mooy indi càkkal bi. jupe fekkat bu nekk rek war nga koo wut. def sa tout blanc. mais yaa ngi génne sa secret de. yaa ngi dégg loolu ah. bari dama leen di defaral ay ah, ah. ndax soxoruma tamit bu ma defaree mu naas kay damay kii. yii ay cristal la. fecckat bu nekk mhm. ay cristal la war a yor ndax mu am éclat mhm. boo ko tàkkee day boo ko takkee day tàkk mhm. am éclat boo takkee yeneen fer yi day gaaw firi du am éclat te tamit am na loo xamante ne nii boo ko takkee ci kaw seen bëgg a jox affaire bi ampleur il faut que nga takk di ray ray. mais xaalis lii nii ma ma xayma la ko. ci xaalis ñaata la quoi ci xaalis tey. benn bu ne ñaata la. tey seeroon naa ko. mais mais mais seer gi du man. Mm-hmm. faat bi gis na de. waaw boo buñ ko takkee suñu digg la mu diis. mais boo ko téye nii ñu dugal ko ci saak saak bi ñu gis calme waaye boo ko takkee ci nit rek on a la lay fekkee. kon digg yaa am doole la. kon ci la. kontaan nañ ci yow. ay ca ñu ngi lay bu baax a baax.